ñuy ma yërmande ci suñu waajur yi ci biir suuf yal na yàlla yokk seen leer yaata seen bàmmeel amiin yaa bi ñuy nuy bu baax ñi ci hôpitaux yi foo jar ñu jara ñaana la ngoog billaahi ñu jara ñaana la ngoog yal yàlla fëgg seen bopp ñoom ñépp ak jàngoro joo mën a yor rekk yal na yàlla fëgg sa bopp nga delluwaat sa kër ñuy nuy ñi caabi féete ginnaaw bu baax a baax a baax a baax leen yàlla mooy xolu muñ dund ba yàlla delloo leen seen biir famille amin yaa rabbi ñuy sama yaay yi nga xamante ni soo dajee ñoom dañ lay ñuy di la ñaanal ah vraiment di la sant di la gërëm bu baax a baax vraiment yàlla na yàlla gën a dëgëral suñu ànd bu baax kontaan naa de tàndeegee maa ngi kontaan bu baax borom parcelle yàlla na yàlla doolu sutura yàlla na yàlla doolu sutura bu baax amin yaa bi mu ngi nuyu mbokki téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo safoo Prestige TV yal na yàlla gën a dëgëral suñu ànd bu baax nee naa leen li ngeen nii xaaral ñu ngi ci yoon wi ñoo ñëw bu leen yàkkamti en direct ñoo ngi ñëw ak jàmm ak salaam di nuy ki ma gunge sama émission muy borom mouvement Thiès jëm ca kanam di président Pape Doumbouya jellooti doon directeur général Thiès Prestige xanaa kenn du moom de macha allah yàlla na dolli sutura moom ma gunge sama émission actuellement nii. di nuy sama yaay ndey xujj xol bu baax a baax a baax di ko wax ne na koo bëgg rek bëgg na la wallahi lazim koo bëgg bëgg na la sama yaay jooju macha allah macha allah di nuy sama ah, xarit monsieur Habib Kane yàlla fëgg bopp bi delloo la ci sa biir famille yal yàlla fëgg bopp bu baax kan amin yaa bi alamin li fi mu ne nii nee naa leen actualité leen rek la muy coronavirus ji waaye macha allah ci biir jàngoro ji fi yàlla suñu borom wàcce di balaa boo xam ne xamuñu fu muy fu ñu koy fajee xamuñu fu ñu koy wëree waaye eh, li ne am na ko gis li koy faj yàlla na ko yàlla dooleel ba mu agsi ci fépp ñépp faju ci nag wér amiin yàlla na ci ñépp faju wér macha allah nañ dolli sant yàlla rek nañ dolli sant yàlla nee naa leen ah dañuy tanante vraiment ñu tanante ñi tane am na ñoo xam ni taluñu sax saan jóg bay toog kon ñi nga xam ne dañoo tëdd rek ñi toog a leen tane ñi toog ñi taxaw a leen tane waaye ñi taxaw macha allah ñi dem ak dikk ñoo leen tane kon yëf yi il faut ñuy sant yàlla nag di delloo lépp yàlla suñu borom xam ne nag lu mu dogal rek nanu ko nangu ba tey ci wàllum couvre-feu bi ci la ñuy nekk yéen a ngi foyee seen bopp yéen ngi foyee seen santé. ndax xam naa ne dóor yi leen di dóor metti na dóor ba say yaram yi dagg dóor ba nga tëdd lal hôpital mais war vraiment nag mën nag xaw ma affaire bi lu muy nuyu loo xam ne buñ la ko defee perte nga doo porte plainte kenn kan nga koy kan ngay porte plainte amoo koy porte plainte parce que couvre-feu la wax huit heures duggal seen biir kër mais huit heures kay dugg seen biir kër wax fa dëgg yàlla nag waaye lii ñuy wone ci ci ci ci ci internet bi metti na de metti na Dakar moom dafa mel ni fële yu fee wulee ñaaye da gis sax ñuy dàqanteeg ñoom ci biir mbedd yi nekk ci biir mbedd yi di di fecc ak tëb di dal ah ndax nee leen bu kenn dóor mais il faut nu dóor il faut nu dóor ndax fan leen war a yóbbu dañ ni mbooloo mu bari la ñuy bañ dajale bi lañuy bañ moo tax kenn kenn du yóbbu kenn di ko tëj dañuy dóor te dóor yi bul xam fan lay yem dóor yi dóoru yéene lay doon comme dóoru yéene lay doon nag sa yaram a ci dagg mieux vaut nga toog seen kër ne ci sa jàmm yaram defe naa loolu moo gën génn ji mbedd yi di dox yenn heure yi ñu jàpp la dóor la dagg sa yaram ah xam nga ni ku ne xam ne ni fii saf na te gis ngeen ñoom ni ñuy dóore dóori métti la ñuy dóor dóor yoo xamante ni sama xol bi sax da ciy jeex hmm? loo balaa càng nag ngeen toog kenn sant leen dóor waaye tamit yéena leen dóorloo hmm? sama ah, mbokki ah, am dolluwaay ngeen xool bu ngeen di dóore yéen tamit xool leen ni ngeen di dóore dóori metti na de dóori metti na te wax fa dëgg yàlla nag ah yenn dóor yi moom gëm ma yàlla dina ko jég dina ko jéggale bàyyi leen dóor yu metti yi ngeen di dóor nit ku su la séenee di daw sax mi laaj est-ce que jarati na nga koy dàq bàyyi bul dàq parce que ni ngeen def dàq ci dàq nit ba mu daw mën na fa daw daanu daane fa ñàkk bakkanam mbaa mu daw tànkam damm wala loxoom damm leneen dal ko fi ah tali bii ñuy daw tamit ab ab dàqe vraiment daal ku la séen bay daw bàyyi ko mu daw dugg seen biir kër man loolu rafetlu naa ko ci waaye daq nit mu daw a daw daw a daw ba terteri daanu fenn du xam fu muy dal du xam fu muy dal te lu ko ci dal lu ne rek perte na ay mbokk ma koy jël faji di ci def loo xamante ne xalaatuñ ko woon bien vrai ko mu ko yóbbee boppam mais ki la seen ba daw daal man su ma sañoon nga bàyyi ko mais karkaroo bi ah am na koo xam ne dañ koo tànd par carte laa ku nekk dóor lu ma plus de dix personne ku ne jàpp dóoru dóoru dóor mu mun a ner am na loo xam ne tamit jaru ko ci daal jaru ko nañ leen rafetal yëf yi rek nag vraiment am na loo xam ne jaru ko mais nit ñi def nii nit ñi tam metti na hmm? ñoom buñ dëgëree bopp tamit benn lii sax xanaa doy na ci dóor doy na ci dóor moo ba yëf doy na waar de hmm? am dafa mel ni daal dafa am lu ci nekk nag am dañu ne mere dañoo merente yoo bu fekkee dañoo merente yoo tamit am naa yéen a ngi yéen a fayu de yéen ngi fay bu baax a baax yéen ngi fayu dóor yi nag moom mën ah, limité leen ko limité leen dóor yi kenn nit lu mat fukki liif tiim ko baaxul yaa ngi dagg yaramu jàmbur tëj ci yaramu jàmbur teg ko ci loo xam ne ay mbokkam ngay sonal loolu tamit bu la ko baalul du la suñu borom du la ko baal ah, parce que dóor yooyu moom kenn santu leen ko wax fa dëgg yàlla nag dóor yi sant ñu leen ko su ngeen mënta bañ a dóor bay dóor nag ngeen xam ni ngeen di dóore mooy nan ñun sax ñooy dóorlu suñu bopp parce que wiita duggal sa kër daal wiita duggal sa kër wiita duggal sa kër mooy ñi jaadu mais de comme dañoo dëgër bopp dëgër bopp nag mooy yóbbe lii mais bu ngeen ñu toppee nag du baax su ngeen ñu toppee da ngeen rey du baax man dóor yëpp gisaguma ñu dóor ci jigéen góor ñi dañuy topp rek di dóor rek metti na de jigéen ñi moom dañuy niru na ñu am jom de bu leen génn daal toog nañ dafa mel toog nañ de hmm? lu bari nag vraiment nag ñu ngi ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci lu baree bari bàyyi nañ ko wax dëgg yàlla dematuñu doxi ñoo ngi toog seeni kër ah lol tamit dal vraiment ci nak wax dëggal ci am jom la bok nak parce que nak lima nan man bala nga ma tour fek nga ma ca mbalit ma moy wax deug parce lo meune ma li li lay bagn dama koy telam moytu fi ne ñu ngi renforcer euh, homme de tenue ñu ngi di ñu ngi di renforcer de ñu di renforcer ah bañ ko doonu sax diko bëgg doon day metti ñu xalaat li ngeen di def bu baax metti na trop trop bi ci dess nak mooy nag macha allah na ñi nga xamante ni nag ah dañu luy kër yi war a fay weer bu dee ak fii jàngoro ji tol fii liggéey yi toll lu bari nag ñu wax dëgg yàlla waxuma ñuy wax présent chaque mois noonu waxuma leen ku ci mën a fay sa luyaas fay ko mais ñi nga xamante ni ci seenum njaay la ñu wékki woon dem di jaay dajale pour ñëw fay seen luyaas kooku bu ki la luye bu com amul compréhension rek day metti day metti yàlla na nga daje ku mel ni xaadim si sama waaj macha allah baax lool tam mën a yërëm nit waaye boo ci dajewul ak ku mel ni moom moom day doy waar ñuy xool ni ñu luye te leer na la ni kii nga luye danaan dem di fortaatu ji indi pour fay la danaan dem jaay ci luuma yi pour fay la dalaan dem lijjanti ji pour fay la nañ dawal tuuti yërmande rek ci diggante bi metti na de loyaas yi actuellement ni dina metti torop ah, lekk gi sax day xaw a tar léegi ah ki nga xamante ni mu doon lekk foog mu jaay ba wàcc boo jaayewul nooy def nan ngay def boo jaayewul ay waay ñi tane nan dimbale ñi tane nan dimbale loolu la yàlla wax de li ñi tane na dimbale bu ñu ko defee kenn du yëg metit mais bu fekkente ni ku nekk li nga am danga cee toog nag tamu leer la ne loo ci dimbali dimbali julliti yàlla du feeñ ci yow war nga ci mën a dimbale metti na de metti na boo waraan xëy suba ba ngoon di jaay pour yóbbu sa kër léeg-léeg ngi gis temps yi bu xëy suba ba ngoon bi lay doo jaay dara kan ngay jaay dem nañ bay dawante kay ah temps biñ la may pour nga jaay bareetul tamit loolu day doy waar de vraiment metti na daal ku tane nit rek dimbali ko te yàlla rek tax ah de leen def ni euh, DG Pape Doumbouya ak Cheikh Diouf Kramex ak ñeneen ak ñeneen ah Cheikh Diouf Kramex sama waa jooju nga xam ni lu mu yor joxe na ko billaahi lu mu yor rek dimbalante na ci te yàlla rek tax moom yàlla moo ko tax di def ajaratu Koddu Njaay sama chéri boobu maa ngi leen nuyu du nuy njaboot gi bu baax a baax a baax a baax képp koo xam ne tane nga nit nga dimbalee du wàññee dara kenn joxeegul ba ñàkk amul parce que yàlla suñu borom mi nga xamante ni mooy mooy fay mi ngi lay xaar pour nga joxe li ne ci yow mu jox la lu ko ëpp kon nag ku tane nit dimbali ko te yàlla rek tax maa ah, ba keroog maa ngi naa leen sama génn ñi dee leen ma ko orange money orange money yi duggagul de ne orange yi ñëw boobu Hmm? comme que ñun xam ngeen ci liñ daan yëngu te fi mu ne ni dangay ngay waaru ngeen xool yéen itam seen gaa yi ngeen daan àndal seen géwél yi génn ngeen xool géwél yi bu baax di leen eh, fàttaliku ci yëf yu metti na waaye bi gën a ñor bi gën a ñor mooy luyaas yi luyaas yi vraiment metti na trop trop trop waaw dina metti day metti ngay metti mettiwul nag ci ki nga xamante ni moom bu weer deewee mu dem banque jëli mu am daan daw xëy suba dem ci marché yi di jënd ak a jaay pour am lu mu fayee hmm? day metti si moom ndax boo gisul kenn ku la jaay loo gisoo kenn ku jënd day doy waar te fi ne nii commencé nañ koo ñaxtu ah day doy waar daal su fekkente ni tamit nag ki ki la luye ci moom ci luyaasam lay xaar pour def ci moom tamit li muy def kaa bi dina katastrof dina doy waar xanaa ñu dugal tuuti yërmande rek xam ne rek nit ku du joxe lu mu amul nit du joxe lu mu amul te lu la bett mën la fi mu ne feebar bi dañ ko doon kafe fullaa luñ ko woon daal luñ ko woon defani woon bitim réew rek lay yem léegi nag gis nga ñu na ba Sénégal te Sénégal nag sax ñoo ngi gën a ràkkaaju ñoo ngi gën a ràkkaaju sax parce que ñoo fi gën a dëgër bopp dañoo dëgër bopp bay bëgg a dee moo tax fim mu ne nii cas yi saa yoo xëyee day augmenté lan la ah toog leen ngir yàlla toog leen kay toog leen mais déedéet bala nga koo xam billaay couvre-feu yi sa xool yi day jeex tàkk ndax dangay gis koo xam ni wutiwul dara ci biti waaye il faut mu génnantu pour ñu fexe nuñ ko jàppe dóor ko ba tëj ci yaramam am na lu ko gën daal vraiment buñ nee toog leen rek toog leen moo gën ñi ba bëgg a jàppe yëfi nag du yoon du yoon du dëgg du yoon kafe ngeen feebar ba mu ëpp leen doole sàggana ngeen ko ba mu ëpp leen doole senegal moom lu ñëw rek mooy jël kub bi lu tax lu tax lu ñëw rek mu jël raw gàddu gi ndax dëgër boppam réew ya mu njëkkee gis nga ñoom ñu ngi commencé sant yàlla ñun nag moom saa yu ñu xëyu ne kaayu yokku na saa yu ñu xëyu kaayu yokku na lan moo ñu ko yóbbee suñu dëgër bopp pour lan Hmm? koo wax mu ne damay def sama yitte dama koy doxe waaye policiers yi ñoom ñu ngi fi rek bu ngeen moytuwul liif yi su ngeen moytuwul liif yi ñu dëkkee yéen benn nit fukki liif tiim ko ñu jàpp seen yaram dagg dóor ba mu dagg te doo xam koo koy jiiñ doo xam koy porte plainte yow say mbokk ngay indil problème say mbokk ngay indil coona balaa caag doo toog seen kër li ngay xëy 8 ba 19 heures nag soo ci mënta lijjanti dara wallaay fi fii ba 20 heures doo ko gaw nga ba lijjanti ko ci demal nga tëddi ba suba demal nga tëddi ba suba mais sénégalais moo mën a ñaawle fi mu ne nii bu ñu nee couvre-feu bu ñu nee 20 sax nga gis ñu génn ci mbedd mi di déem a doxantu rien que pour di lan na leen na oto bi génn dàqe leen te la plupart kuñ ci dàq jàpp la ndax kenn dàqu la ñaar dàqu la lu mat fukki nit a lay jàpp ñoo lay dàq ji. buñ la jàppee ku nekk bëgg a dóor ku nekk bëgg a dóor ngeen jéem a moytu loolu moo gën lii de buñ dundee ba koy fàttaliku am na ñoo xam ne moom seen yaram leneen lañ ciy wax ndax ku ne xam na ne liif mel balaa caag nag nga toog sa biir kër xam ni man mii kat bakkan jàmm la bëgg su ko mënee am yow wuti woo dara kenn laaju la dépense fayoo ndox fayoo courant dara nekkee woo ko seen kër lu dul fu attaay ji nekk yaa nga ca bu jeexee jeex na waaye yow léegi yow moom yow looy wut ci biti bal la jàpp ñi jara yërëm koy mooy ñi nga xamante bala ñu doon lekk génn dem daani seen doole bala ñu doon naan génn dem jënd ak jaay te loolu yépp temps bi mayatu leen ko ñooñu koy ñoo jara yërëm ñoo jalal jooyal waaye yow mi nga xam ni eh, yaa ngi mën a yem kay war ngaa mën a toog bu ñu nee la toogal hmm? waaye déedéet ñun daal ñun dëgër bopp moo ñu yóbbi lu ñu mën a dal ci kaw suuf rekk suñu dëgër bopp moo ñu ko teg waaye loolu dina wóor bu fekkente ni ñun am dëttan yi moo ñu dese wallahi azim di ngeen xam ni ñoom sant ñu leen ko sax waaye comme nag fañ ñu war a yóbbu dafa dajaloo bi lañuy ñuy bañ bu kenn dajale nit ñi toog leen seen kër yi di raxasu ba set diw seen loxo yi maanu régler benn place ku ko ci def di nga mucc laa bi dimbali leen ñi ci coronavirus yi nga xam ni saa yu ñu xëyee mu yokk saa yu ñu xëyee mu yokk ay waaye te ngeen ñu dimbali Cees nag ñoom ñu dañoo rakkaaju sax laa defa ne dégg naa fi kaa boo xam ne nañ toog ngir yàlla ñépp mucc yàlla nañ yàlla dolli sutura bu baax yàlla nañ yàlla sàmm aar nu làq na fa yàq yeggul moo ci mën dara moom mi ci mën dara nag yàlla na ko yàlla saafara bu baax a baax a baax may nuyu Cheikh sama man bu baax di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak wér la di nuyu musaa mbay mi nga xam ne moom may jox euh, ravitaillement macha allah kenn du moom ci man ajaratu maam jaara chéri mbay ñang maa ngi leen nuyu bu baax Sophie Saw ah, kooku ñu duppee sama yaay Sophie Doucouré yaayu maam ñaaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax yow Penda si la nee naa la même grand bu sax soo ma ko daggalee dama koy santiir papis maa ngi lay nuyu kooku moom daanaka grand bi may sol yëpp moo koy dagg mais pend si la bii ma sol nii ba keroog ma jógee maa ko yaaka dagg xanaa ay wax day dugg may ga bu génnee xeeñ soble yow sama combat da nga cee jàpp ba mu neex yal na yàlla dool sa sutura si la lu ma la waxale yaa ko def ma la dara gis ngeen sama saak ah sama saak faana Touré faana Touré miñ duppee ajaratu faana Cissé nii la def ak man samay dàll tey moom jaune blanc rek laa sëf te lépp mom la samay ver mi ngi ni ay photogré ku ko jox samay photogré mi ngi ni Jibi Njaay mo jaar fi mo genn fi Maguette Njaay bijoux yu rafet khadim dal ak sac machallah neena len way wa ties ni ñu wara def ñing koy def comme ni ñu wara def ñing koy def na day japp ci combat yi ba mu neex yalla yalla yàlla dolli fi la nek Prestige ties di len wax ni affaire bi fi la yalla na yàlla aar ñépp sàmm ñépp làq fa yaq yegul yaa jëf waa Peyku maa ngi leen di nuyu baat yu ma kenn sama maçon yi ñoom ñaa hmm? ñoom Lamine bàyyi ma kenn ñoom jum macha allah yaa dool sutura sama njaboot ak njabootu jàmbur jërëjëf Prestige